ca tàngaay wax mën naa ni ca Tamba sax ndax da ko jege lool ku ngeen gis mu bokk ci ku tedd ki te am ay tool yu soree noonu te ñemee tool ya jàpp leen ni du na dañ koy woyee jàmbaar rek da koo doon te bari na ku ñuy woyee jàmbaar te fekk dañ lay sag waaye moom jàmbaar waaw ñi ko meññ itam wax dëgg yàlla kon nag xam na ni ñi ko meññ itam ñëpp ay jàmbaar lañu jàmbaar yi mënu ñoo tolloo bu ñu doon tolloo kon ñëppay gudd ñëppay rëy jàmbaar yi mënu ñoo tolloo xam nga nit ñetti nit am ki gàtt ak ki digg diggu doomu ak ki njoor noonu la jàmbaar yi mel jàmbaar yi dafa ëpp leen nekkul nag ci ay at waaw nekkul ci ay at de diw naa diw at yi dafa néew déedéet kenn magul kenn yàlla bu mu ne alastu bi rabbikum ñëpp a ne bàlle ruu yëpp bindandoo dañuy jël di sànni rek ku nekk fa ngay jaar waaye moom li ma bëgg rek waxoon naa ko njaboot gi dinaa leen koy waxaat jamono bu nekk ku ci ubbi xasaay yi dee ma ko bàyyil xel di ko ñaanal fan wu guddal wér ak ndam li hmm? ci kanam nag raw ci bët ñu ngi séentu asadisa arais asadisa dañu koy séntu le sixième président ñu ngi koy séntu waa Daaru nag bu ñuy yàccaaral bu fekkee ji feneen hmm? ñu ngi koy séntu de parce que cinquième bi bi mu naree jëm feneen moom mi ay maamam a fexe ba ci doonoon quatrième ñu ak ko cinquième bi léegi nag di jëm ca kanam sixième Serigne Saliou joxoon na juróom benn ñaan ci Hizbul Haq hmm? te xale bu sot jox ma benn bëyit bi ni mi ngi koy jëlee ci ak diwaanu ak naari yu bëyit bu ma mës a dégg mu mel ni dañoo wax ci bëyit bi ni siyaasat yi tax nii minal aari sax la wax man gisuma bayit ba waaye damaa jàpp ne an aarin la min aarin moom la ma wax ki ma wax waaye man gisuma bayit ba waaye ma jàpp ne an naarin la ndax min da ca topp dëgg la ñaari min dina tegaloo gaa dina tegaloo grammaticalement waaye man maa jàpp ni bayit boobu ma ko gisoon wala ma xam cosaan la damay jàpp ni daf ni siyaasati tax mi an naarin wa min naari hmm? politique boo xamante ni bi dalay musal ci gàcce ak sawa biig laa mos a dégg sama sama waaw man daf may aar ci gàcce ak ci sawa lool sama ma ko bind nee na ñooy ndax musuma musuma dajeen moom kon du ma ne ko sama mu bind yam ca dama naan ko nee na ñëw waaw moo gën a wóor loolu mooy màndute joxal xale yi ma gunge ko شكرا جاك فيه